Mesdames, Messieurs les journalistes, fois encore, merci d'être venus nombreux assister à la proclamation des résultats du vote de l'élection euh, de, de, de, euh, de, du 24 février, de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Je voudrais d'abord vous signaler que durant ces trois jours, nous avons procédé à l'examen des procès-verbaux issus des commissions de recensement départemental des, des votes du Sénégal et de l'étranger. Nous avons ainsi examiné 53 procès-verbaux qui n'ont fait l'objet, sauf rectification et harmonisation d'écriture, qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Et nous l'avons fait, cet examen, avec des représentants des candidats, euh, des candidats Macky Sall, Idriss Seck, Ousmane Sonko, Madi Kenyan e El Agissal. Jusqu'à hier, nous avons bouclé le recensement des procès-verbaux qui nous sont parvenus, qui, nous, qui provenaient des commissions départementales de recensement. Il nous restait quelques bureaux de vote que les commissions de l'étranger n'avaient pas encore au moment de clôturer. C'est ce qui a retardé un peu notre intervention de, euh, actuelle parce que simplement il nous fallait collecter encore des renseignements venant de l'étranger pour ne négliger, en tout cas pour ne laisser en rade aucun vote, aucun suffrage exprimé par les Sénégalais, les citoyens sénégalais. Nous l'avons fait et euh, je pense que, sauf peut-être deux bureaux de Port-Gentil euh, et quelques autres bureaux d'Italie, nous avons pu tout recenser. Et c'est pour cette raison maintenant que nous sommes en mesure d'aller vers la proclamation provisoire des résultats. Alors, autour de moi, vous avez tous les représentants des candidats, à savoir la coalition Ousmane Sonko 2019, la coalition Macky Sall 2019, la coalition Pur Sang El Hadj la coalition Madi Kenya Madame Traoré qui représentait jusqu'à hier à la fin de notre recensement le candidat Idriss Seck Idriss 2019 ne s'est pas présenté ce matin. À l'exception de Madame Traoré, tous les candidats ont signé le procès verbal même si les représentants de IDI 2019, de, de Sonko 2019 et du, du PUR et de Modi Kenyan ont joint, comme la loi le veut, des observations écrites euh, pour soulever des griefs tenant à l'organisation, à la marché des bureaux, euh, au déroulement du scrutin, dans les différentes localités du Sénégal et ça c'est à l'endroit du Conseil constitutionnel. Comme le, le veut la loi, nous sommes tenus d'annexer ces observations au procès-verbal qui est destiné à transférer notre saisine à l'appréciation du Conseil constitutionnel. Je m'en vais maintenant procéder à la proclamation provisoire des résultats.

El Hadji Sall cent soixante mille cinq cent cinquante trois cinq cent trente mille cinq cent trente trois pour cent et je de participation est de 66,23 pour cent pour dire que les Sénégalais ont massivement voté. Et si, y a lieu de le dire en Wolof, je pense, je pense devoir revenir pour dire que le nombre d'électeurs au Sénégal et ñi ñi ñi jàppoon ne ñoo war a wote ci Sénégal ren mooy juróom benni million juróom ak juróom benni téeméer juróom ñett juróom-ñett fukk ak ñett ak ñeent fukk ak ñett ñi wote ñeenti junni ak ñeenti téeméer ñeenti ñeenti junni ñeenti million waay ñeenti million ñaar fukki junni ak juróom benn yu teg juróom ñett juróom benn fukk juróom bu bien je pense que c'est mieux en français <laughs> bulletin yi nga xam ne nii waaw ah oui on me dit quoi même est-ce que c'est c'est c'est nécessaire waaw dama doon wax ci parce que euh, dama anticiper un peu sur les chiffres sunu délibération yi jaar na ci yoon ndax bi ñu duggee ci saal bi muy talaata ba tey amuñu benn jafe-jafe s'il vous amuñu benn jafe-jafe ci sunu diggante boo xam ne nii jàmmaarloo nañu mbaa indil nañu waroo PV yi ñu recensé yëpp muy juróom fukk ak ñett muy yu Sénégal ak yu bitim réew yu Sénégal ak bitim réew jaar na ci yoon lu dul nii dafa am ay chiffres yi ñu redressé amul lu ñu annulé amul loo xam ne nii waroo nañ ci donc loolu lépp jàll na ci ñu ci déggoo ko bi loolu jàllee sunu ndaje moomu ñu doon def ñi ko teewee candidat yëpp teewoon nañ fa en tout cas ñi leen représenté teewoon nañ fa ba démb bi nga xamee ni ci lay jeex li tax ñu yeex a ñëw ci salle bi pour proclamer mooy que te dañu amoon PV yoo xam ne nii commission étranger yi jotuñu koo jël parce bi ñuy paree ñoom demain démb ci alarba euh, ci ci midi yooyu bureau ñëwagul muy bureau yu jóge Côte d'Ivoire muy bureau yu jóge Italie muy jóge yu Espagne ak feneen mais yàlla def na ci jàmm ñun xaar nañ ko ba liñ ci war a jot yëpp jot nañ ci lu bëri loolu moo taxoon tey ñu teel a ñu yeex a ñëw ci salle bi comme ni ñu ko waxee woon mais loolu lépp yàlla def na mu yemb ah, tey ci suba noté nañu ni candidat Idy 2019 bi ko ko fi teewaloon muy madame Traoré gisuñu ko xam xamuñu nag lan moo tax wante su dul loolu candidat Macky Sall ñi ko fi teewal ñu ngi fi candidat Issa Sall ñi ko fi teewal ñaar lañ ñu ngi fi candidat Sonko ko fi teewal ñu ngi fi candidat Madické ñi ko fi teewal ñu ngi fi Sénat aussi nga xam ne mënuñoo def dara te teewu ko ndawam a ngi nii toog donc liñ doon def ak ñi nga xam ne nii ñoo ñëwoon ci suñu suñu réew ñu invité leen pour ñu saytu élection yi ñoomit ñu ngi fi mooy observateur bi CEDEAO union union union européenne ak la société civile bu Sénégal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm loolu daal la amoon ci li may wax ah di leen ah, di leen jéggulu nag xaar bi ngeen xaar parce que yàgg na voilà les chiffres maintenant léegi nag ñi doon jongante ngeen baal ma ma wax ko ci tubaab chiffres yi li ñu tënkoon ci ci fichier bi mooy six millions six cent quatre-vingt-trois mille quarante-trois ñooñu quatre million quatre cent vingt-six mille trois cent quarante-trois quarante-quatre dem nañ wote ji ñi nga xam ni seen wote nanguwuñ ko ndax dafa dafa dafa am lu ci lu ko rëkkal 42 465 la li nga xam ne moom la ñu nangu ni mooy yi ñu war a séddale candidats yi moo xam ni baat yi baax 4 millions 383 mille 879 la yoolu bi ñu ko séddalee candidat Macky Sall am na ci 2 millions 554 mille 605 mu doon que ñu ko estimé cinquante huit virgule vingt sept pour cent candidat Idrissa Seck am na ci huit cent quatre vingt dix mille six cent soixante quatorze bu ñu ko xaymaa muy vingt virgule cinquante pour cent candidat Ousmane Sonko am na ci six cent quatre vingt mille soixante cinq bu ñu ko xaymaa muy quinze virgule soixante sept pour cent candidat Madické Niang am na ci soixante cinq mille deux bu ñu ko xaymaa muy un virgule quarante huit pour cent. candidat El Hadji Sall am na ci cent soixante dix huit mille cinq cent bu ñu ko xaymaa muy quatre virgule sept pour cent ñi demoon ci at euh, jongante bi pour sànni seen xob bëri nañu comme li ma ko waxee woon sénégalais yu bëri ci fii ak bitim réew dem nañu ak takku wote ñi wote ñëpp soixante six virgule vingt trois cent la muy taux de participation boo xam ni bu dee amit bariwul maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jégalu di leen masawu ci aar xaar bi ndax yàgg na wax ji ñu ngi koy saraa merci beaucoup. jërë ngeen jëf ci teewlu bi ñu leen di jaajëfal di leen di dalal ak jàmm ci eh, suñu antenne fii ci rajo télévision bu Walfadjri rawatina ci édition spéciale bi ñu jagleel eh, li nga xamante ne mooy publication résultat yu tukkee ci élection présidentielle.

ont obtenu Macky Sall 2 554 605, soit 58,27% du, des suffrages valablement exprimés. Idrissa Seck, 8 euh, 880 898 waaw 898 674 soit 20 20,5 pour cent mm. euh, des suffrages valablement exprimés Ousmane six mille huit cent mille. six cent six cent quatre vingt sept mille. six cent quatre vingt sept mille. soixante cinq soixante cinq. Mhm. soit quinze virgule soixante sept pour cent. Mhm. merci mhm. Seydina. Madi Kenya mille deux soit un virgule huit pour cent. et El Hadj Sall cent soixante mille cinq cent trente trois soit quatre pour cent. ce qui fait un taux de participation de 66,23 pour cent euh, ci ligne bi ñu ngi fi ak suñu naataango Khady Sylla nekk ca général générale bu Idrissa Seck ne jiitu coalition IDI 2019 Khady Sylla ñu ngi lay dalal bëggoon a xam euh, yan réaction moo am foofu waaw fi mu ne nii ñu ne ñu ngi xaar Idrissa Seck ngir mu prononcé wu gannaaw résultat yi waaw Issa la ñuy jëlaat ca tribunal bu Ndakaaru ngir mu tënkal ñu la fa tukkee allo Ndeye Fatou waaw Issa waaw kon ñoo ko déggandoo noonu dégg ngeen nga xam ne moo tukkee ci wati njonamal mu di nag euh, lu nga xam ne Demba Kandji joxe na ko te ngeen sax itam nombre euh, électeurs yi mu wax ndaxte ñi ngi toll ci six millions huit cent soixante trois mille zéro quarante trois électeurs yoo xam ne ñoom la ñu doon ci fichier électoral bi waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo woote ñi ngi toll ci quatre millions quatre cent vingt cinq mille trois cent euh, quarante quatre électeurs yoo xam ne ñoom ñoo daal di woote kon ci jongante yi nga xam ne moom la ñu génn waaye nag nombre de bulletins nuls yi ñu ngi toll ci quatre cent quarante deux mille 465. bulletin nul moom la ñu daal di toll ci 442 mille 465 bulletin nul moom la ñu daal di nemmeeku ndaxte nag li nga xam ne itam kon moo di ñii ñu nangu nag seen ay vote ñi ngi toll ci. million 4 millions 383 mille 679 loolu la moom la kii de di Demba Kandji daal di joxe waay itam Macky Sall am lu tolloog cent millions 554 mille cent 605 voix moom la am mu di cinquante huit virgule vingt sept pour cent ki lay di Idrissa Seck mu am lu tolloog huit cent quatre vingt dix mille six cent soixante quatorze mu di nag euh, lu tolloog vingt virgule cinquante pour cent ki lay di Ousmane Sonko moom moo ci topp ndaxte mi ngi am lu tolloog six cent quatre vingt sept mille zéro soixante cinq voix moom la am mu am lu tolloog quinze virgule soixante six pour cent moom la Ousmane Sonko am ki lay di euh, Issa Sall moo ci topp kon waa Pur Sang ndaxte mi ngi am lu tolloog cent soixante dix huit mille cinq cent cinquante trois moom la am mu di nag pourcentage lu tolloog quatre virgule zéro sept pour cent ki la di maître Madické Niang moom moo daal di mujjee ndaxte mi ngi am lu tolloog soixante cinq mille zéro zéro deux voix moom la am waaye nag Ndeye Fatou li ci gën a mën a nemmeeku rek ndaxte ki la Demba Kandji wax na ne képp ku nga xam ne nekkoon nga candidat ay mandataire ñëw na ñen daal la nemmeekuwul seen i mandataire mu di ku ci mel ni Idrissa Seck ndaxte moom madame Traoré la wax ne moo ko doon représenté xamuñu nag kan mooy madame Traoré en tout cas madame Traoré la wax ne moo ko doon représenté waaye tey ci suba gi ñëwul kon ñi nga xam ne itam ñoo ñëw ñenn ñi daal dinañuy def ay signature waaye ne signature yéexaloon kon délibération bi ñu bëree bëri ñu ngi ko doon xaarandi waaye nag li ko yéexaloon bokk na ci ne rek xëy na ay PV yu ñu doon gën a càmbar bu baax a baax ngir bañ cee def ay njuumte waaye itam yenn ci ay ay vote yoo xam ne kon dootuñu seen ay PV fu ci mel ni Italie wax na ko ak fi nga xam ne nag moo di Argentine jàpp na itam ñaar yooyu yëpp xëy na nekk na ci ay jafe yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci wot yi nga xam ne moom la ñu génn kon mi ngi noonu cinquante huit virgule cinquante huit pour cent kon moom la ki di candidat Macky Sall am 58 pour cent yi nag 27 kon moo ci tegu 58 virgule 27 pour cent moom la candidat Macky Sall am donc premier tour la jàll moom mi nga xam ne moo jiite coalition Benno Bokk Yaakaar président sortant ki doit encore briguer un second mandat de cinq ans selon la la loi donc ñu war a dem nag cafe fa nga xam ne moo di conseil constitutionnel ngir xool naka la ñuy def ba mën ko càmbaraat mu di ay recours ak yeneen yu ni mel am nañu droit dem defi ko buñ ca noppee nag ñu daal di koy génne loolu yëpp nag nday faatu mu di loo xam ne nemmeeku ko fi xanaa rek ñu jéem a daal di àndandoo jéem xool nag naka la ñuy def ba mën a jël yenn ci ay réaction gis ngeen noonu takk der yi di évacuer salle bi xanaa rek bu ñu génnee ñu àndandoo jël ay réaction kon nañu jéem a dem baysal bu mën nañoo dem jël fële réaction ndaxte gis nañu ay mandataires yoo xam ne ñi ngay jëm a àddu Serigne kon ñu jéem a dem fële jël ay réaction bu fekkente ne mën naa nekk xam naa ne réaction yi ñu gën a soxla mooy nga wàccati dem côté point E fekk ji Hadisila foofee nga xam ne mooy quartier général sa Seck moom mi nga xam ne moom la ñu jëloon en pole position waaw léegi ñu déglu Hadisila Hadisila alors Ndeye Fatou Ndiaye waaw alors lan nga ñu mën a wax ci réaction foofu la ci kër Idrissa Seck FUB daal ba kuy euh, ñi nga xamante ne mooy démakat bi lu mu wax ci sport bu cinquante virgule sept pour cent yi dafa mel ni daal soulèvement li dañ ko sànni euh, loo xamante ne ñi dépp daal di sëngëm ñëpp daal di yuuxoo fu mu toll ni sa baat dañu jaar sa def déclaration ma bàyyi leen ñu déglu ko comprend clairement que si le président Macky Sall aujourd'hui fait ce qu'il fait et qu'il n'y a aucune a plus d'intérêt C'est la vérité. Parce que les magistrats se voient proroger euh, leur mandat, ceux qui doivent aller à la retraite, on les maintient en leur boulot. D'autres sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Et que voulez qu'on vous dise C'est aux Sénégalais de comprendre qu'ils doivent se lever et refuser ce qui se passe dans ce pays. Macky est arrivé au pouvoir par la voie démocratique et aujourd'hui, il veut se maintenir au pouvoir par une voie antidémocratique. le répète, Ce mandat n'est pas le deuxième mandat du président Macky Sall, c'est le premier mandat du président Macky Sall de par la Constitution en vigueur. Donc, qu'aucun Sénégalais ne soit surpris que dans mois, le président Macky Sall un deuxième mandat de par la Constitution qui serait dans la tête des Sénégalais et dans l'entendement des Sénégalais un troisième mandat. Donc, nous invitons les Sénégalais à la résistance. Et le reste maintenant, je crois que les eu besoin de prouver à la face du monde leur courage, leur détermination et leur volonté de vivre en démocratie. waaw lu ma mën a lu ma mën a wax lu ma mën a wax mooy tey lu ngeen dégg ci rajo yi ñu koy joxe ci ay résultats daanaka loolu dafa dëppul ak dëgg lu ci des nag lu gàttal wax ci lu ci des dama ne ñaari at ci ginnaaw dem nañ ci élection législative ak Macky Sall. lu mu galgal yëpp ci élection yi quarante huit pour cent la la la jot am nan ñu Macky Sall wax législative ak tey lan la fi liggéey ba mën a jóge quarante huit pour cent dem cinquante huit pour cent nekkul amul wax ci nag mooy lan Macky Sall wax na ko gémmiñam suñu nopp Macky Sall nee na moom du nangu tey dem second tour parce que nee na bépp président Afrique buy ñàkk nguur gi c'est parce que dafa dem second tour kon nag Macky Sall nee na moom yaakaaru ko ci daf koo yaakaare ci ay stratégie daanaka ci ay tappale u jéem a xool lu muy amee second mandat kon nag résultat yi ñu jot a dégg ci rajo bi loolu dafa dëppawul ak dëgg moo tax ñu ngi ñaax Sénégal yi ci yar ak teggin jàmm ak salaam dañuy taxaw tem te wane seen bopp loolu mooy dëgg bi loolu mooy résistance ci ay waxtu yu ndaw dem dëgg incha allah alors Ndeye Fatou fu mu toll nii dafa di ah. loolu leer na waaw Khady Sylla allo Fatou Ndiaye. Mhm, Khady ñu ngi lay dégg. ñoo ko déggoo doon fu mu toll nii moom euh, mun nañoo wax ni euh, opposition bi taxaw nañu teem a ngi xeex lépp loo xam ne ko ci ci démbakaan bi saa ndax nee nañu looloo mhm. ne d'accord ci benn yoon ci li ñu woote Sénégal yàllaa koy mhm. jërëjëf Khady Sylla en ñuy amaat yeneen euh, développement ci la am am foofu la ca point E gannaaw bi ñuy publier résultats yi donc officiellement on peut dire que le président sortant Macky Sall a été réélu Euh, pour un de cinq avec un taux de cinquante huit virgule vingt sept pour cent des suffrages valablement exprimés votre euh, réaction sur ce <laughs> Voilà le président donc qui remplit avec 58,27% et l'écart est trop grand on considère euh, oui, 20% pour son suivant. Pour son suivant, Idrissa Seck. Mm -hmm. Et cela également confirme les 58%. Les 5... Le Premier ministre avait dit 57%, on est à 58%. Mm-hmm. Euh, Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel va décider Parce que c'est donc le Conseil constitutionnel qui va euh, autres candidats, notamment Idrissa Seck et Sonko, Euh, même tous les autres ont la possibilité donc, euh, c'est-à-dire euh, de, déposer, de recours. dans les 72 heures. Ouais. Et peut-être le Conseil constitutionnel a un délai d'une semaine aussi maximum, je pense, pour confirmer ces résultats ou infirmer. C'est selon. D'habitude, donc, ce score souvent est confirmé par le Conseil constitutionnel à quelques exceptions près. Ouais. On ne sait pas ce que le Conseil va dans la semaine à venir, mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui est que le, premier, président, le donc remplit pour un mandat de 5 ans. Et c'était attendu, c'était prévisible. En tout cas, l'attente a été longue. Mais toutes les tendances donc, euh, données déjà le président vainqueur, euh, à la lumière des déclarations qu'on a eues ces derniers jours, et à la lumière donc, de ce qui se préparait depuis quelques temps, parce que l'opposition Euh, avait donc, euh, dès euh, la fin du scrutin, mm. annoncé donc que c'est le président qui pourrait être donné vainqueur et ne, pas. Mm. Elle avait fait côté du pouvoir, le Premier ministre avait déclaré 57% mm. à la lumière des tendances qu'il avait reçues, des résultats qui ont été compilés donc que le président Macky Sall qui passe, comme annoncé par beaucoup de ses lieutenants. Vous aviez rappelé euh, la déclaration de Aïmi président du groupe parlementaire. Oui. Ensuite, il y a eu la déclaration du Premier ministre euh, Mohamed Boun Abdallah Dion. Mm. Aujourd'hui, donc, c'est la Commission nationale de recensement des votes qui vient déclarer les résultats provisoires. Et cela montre nettement que ça vient maintenant d'une source officielle, autorisée, autorisée également. Mm. Je pense que ce qui reste aujourd'hui, ce sont des recours, mais pas la contestation, sinon c'est à un autre niveau. Mais au côté, côté la question a été déjà évacuée. Oui. Qu'est-ce que a décidé, qu'est-ce va faire CSA à leur niveau. les heures qui suivront vont nous édifier Seydina Omar Ba comme ni nga ko déggee président Macky Sall toogaat na ci bopp réew bi diirub juróomi at gannaaw ba ñu defee wote bi. waaw euh, mu doon loo xam ne je pense bien que dafa ñuy euh, day confirmer rek da <laughs> nga xam ne waxoon nañ ko fi ci suba. oui euh, allo allo bi am na. waaw dafa mel ni ci ligne bi. xooxaan waaw non waaw xooxaan yaa ngi foofu ci quartier général bu Benno Bokk Yaakaar gannaaw kan nekk ci ginnaaw candidat Macky Sall euh, lan moo fa xew. Euh, waaw euh, Ndeye Fatou ko waxee ñu ngi fii ci siège bu Benno Bokk Yaakaar jamono ji ñu toll nag ñoom ñu ngi féete seen ndax ndaxte euh, gannaaw ba ñu joxee verdict bi euh, yuuxu yi bëri woon nañ ci ñii di tàccu ñii di ree ñii di songante euh, fu mu nekk nii tamit militant yi ñu ngi jógee béréb yu nekk ngir ñëw ci fii nga xam ne moo di permanence bu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi yor seen i pancarte ñi yor ay ndënd fu mu nekk nii nii ni Aminata Touré moom moo doon def déclaration Euh, ambiance bu bu bu neex a neex wax dëgg yàlla moom moo fi am jamono ji ñu nekk nii euh, militants yi ñu ngi jóge fu nekk waaye tamit nemeeku nañ ni euh, force de l'ordre yi ñu ngi daal di def seen i liggéey maanaam li mel ni gendarme ak police yi ñu ngi fi ndey faatu bari fi lool nag di réglementer circulation bi waaye tamit lépp lu ñu mën a jàpp ci discours Aminata Touré rek moo di ni gannaaw bu mu féetee victoire bi maanaam gannaaw bu mu jubilé yëkkat na ay kàddu wax ni remercier euh, population wu Sénégal ci euh, ci turu président Macky Sall ni dal jamono ji ñu toll nag fu mu nekk nii amatul opposant ñëpp ñoo bokk Sénégal te jamono ji ñu ngi woo ñi nga xam ne ñoo pare woon ci kuje bi ak ñu nekk ci mouvance présidentielle bi yëpp ñoom ñu lëkkaloo ngir rek mën a amal euh, liggéey bu mucc ayib ñu teg euh, Sénégal ci raay de l'émergence kaddu yooyu la mu turee yëkkati gannaaw bu mu waxee tamit ni élection yi euh, def na constat li ñu constaté mooy jaar naa ci anam li mu war a jaare ne observateur observateur national comme international yi seen liggéey amal nañ ko ni ñu ko war a am te tey jii résultat baa ngi nii nee nañ daal président Macky Sall jël na ndam ñoom nag ñu ngi nii nee nañ daal fas yéene nañoo waaye lépp daal dañ koy teg ci kaw yoon du ñu salfaañe yoon te euh, du ñu def lenn loo xam ne nii dëppoowut ak yoon jamono ji ñu nekk nii ambiance am na fi militant yi tamit bëri nañ ci trop ndey Fatou. waaw ana seen candidat bi mooy le vainqueur euh, président Macky Sall mu ngi fa la euh, ñëwagul le président Macky Sall ndey Fatou euh, comme ni ma ko waxee sànq moom ñëwul ci ndaje bi ndax dafa génn réew mi wala déet wóorul mais am na ñu koy wax mais li ñu mën a jàpp daal mooy fii ñu nekk nii daal responsable yi fi ñëw mooy ku ci mel ni Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñoom maître El Hadj Diouf ñoom Aminata Touré. ñoom Diop fi ak ñoom Abdoul Mbow ñoom ñoo fi nekk ak ñoom Thérèse Diouf Faye responsable benn Bokk Yaakaar yëpp daal ñu ngi fii euh, ci permanence bi euh, boo génnee ki nga xam ne moo di président assemblée nationale Moustapha Niass yaakaar naa ne képp bépp responsable bu paree APR rek sew na fii tey euh, ngir. feete ci victoire bi ñoom ñu ngi nii Aminata Touré mooy génn jamono ji ñu nekk nii ñu ngi ko escorté mu ànd ak garde du corps am ñuy génn euh, mu ngi génn ci permanence bi jamono ji militant yi nag bëri ci comme ni ma ko waxee sànq ñoom ñëpp ñu ngi reetaan dégg nga ambiance bi dégg nga ndënd yi euh, ñëpp a ngi ci taxaw di feete victoire bi Ndeye Fatou jërëjëf Fokhandong comme ni nga ko waxee foofule ca quartier général bu Benno Bokk Yaakaar ñu ngay sabaru di fecc ak euh, jubilé mhm. euh, gannaaw ba nga xamee ne seen candidat di président Macky Sall moom moo gagné élection yi au premier tour ni ko juge Demba ji xamale Seydina Omar Ba waaw mu doon loo xam ne nii je pense bien que dañ koy rafetlu ah mhm. parce que aussi dafa loo xam ne nii wala fi dañuy faral di wax naan lu ne fàng ke du ko jeex mhm. euh, te lii moom dafa mel ni que leer na quoi ci sama gis-gis parce que xam nga lu tax parce que euh, commission de recensement bi mm-hmm. euh, boo déggee Demba Kañ muy wax dafa mel ni que jamono ji ñuy commencé dépouiller càmbar affaire mm. ba ci jamono ji nga xam ni ci la ñuy siiwal résultat yi bu weesoo ñoom magistrat yi am na ci représentant parti politique yi mm-hmm. donc mu mel ni mbir yi leer na parce que xam nga laay bañ ci àdduna mm-hmm. moo ñu naan signature avec réserve signature amul réserve da ngay mën a signer ànd nga ci boo mënta signer nga bàyyi mais l' la nga xam ne ni juge Demba Kandji wax na ko wane na ni résultat yi mbooleem candidat yi dafa mel nekk ànd nañ ci. Mm-hmm. peut-être ki nga xam ne ni moom moo représenté woon lan moo tax ñëwul kooku peut-être moom moo ko xam. Mm-hmm. mais l' essentiel bu ne ñu nga xool ci wàllu présence gis nañ ne yi nga xam ne sampoon nañ seen dënn wax ne dañuy bokk ci élection présidentielle yi nañ ay représentants ci biir commission bi kon cela veut dire que ànd ci mm-hmm. résultat bi nga xam ne ni moom moo am kon mënuñu def lu may rafetlu. Mm-hmm. parce que aussi Sénégal ñun lii lañ doon xaar parce que dama depuis deux depuis mille neuf euh, depuis deux mille ba tey mm-hmm. daanaka ay euh, élection ci élection jàmm lañ fi yàgg am. Mm-hmm. ay élection yoo xam ne ni daanaka ci wàllu démocratie lañ ko yàgg defee mm-hmm. kon tey ji bu fekkente ne juge Demba Kandji joxe na résultat provisoire mm-hmm. ñu jël ndam di jox ko ki nga xam ne moom moo di njiital réew mi Macky Sall te représentant parti politique yi nekk ci constaté wuñu kon yi jaar na ci yoon waaw balaa ñu ci am yeneen euh, leerlu euh, Ibrahima Ndiaye nekk suñu naataango ca Thiès fiefu Idrissa Seck mu ngi ci ligne bi Ibrahima ñu ngi lay nuyu ñu ngi donc sàmmoon nettement que donc affaire bi fi mu toll nii moom mhm. yaakaar naa li ci des peut-être ay déclaration de principe mhm. wala ay combat de principe mhm. wala ay manifestation yoo xamante ne jeunes yi ñu ngi koy def mais peut-être loolu peut-être exprimer une colère la mais je pense que aussi comme ni nga wax c'est le Sénégal qui gagne et ce qui reste aussi c' est d' aller mhm. au travail. nag bu ñu ko wax mooy pouvoir bi dem liggéey mi itam. Mhm. ku jege continuer di liggéey parce que itam ñoom dañoo am beneen liggéey boo xam dañ ko war a def ci wetu askan bi. Mhm. pour itam nag euh, parce que yëf warul yem fii am na yeneen mandat yu ñëw am na yeneen élection yu ñëw. élection locale te moo tax sax ma yaakaar ne. moo sonal dëgg opposition bi parce que itam mënoo signer un contrat avec euh, société bi. dem ba acci fii itam te amuloo teg ci seen nopp aussi kooku mhm. problème la mhm. donc euh, dinañ leen won ne liggéey nañ lii la ñu am mhm. li ci des nag il faut liggéey bi continuer waat askan yi itam nag continuer waat beneen liggéey te mooy itam fexe ba euh, réforme yi ñu soxla nga xam ne réforme consolidante bu tax suñ constitution bi vraiment li ñu yoon may yëpp ñu ciy jot li ñu yoon tere itam te ñu am ci yelleef ñu fexe ba da ci jot ñu continuer combat yooyu nga xam ne combat citoyen la yaakaar naa moo ci des actuellement toujours rek di améliorer suñu niveau de démocratie. démocratie parce que Sénégal mhm. moo ciy gagné rek. c'est lu ci mënti passé rek comme ni ñu naan l'expérience et la somme des erreurs. Mhm. Euh, lépp lu fi woon quoi ci processus bi ba ci élection bi ñu fexe ba beneen yoon ñu bañ ko reprendre waaw day gën a mhm. baaxal rek ah, ak taaral. c'est ça le problème mooy li ma faral li ma doon wax rek moom mooy bu fekkente ne Macky Sall gagné na. na ko opposition bi woo ko félicité ko. Mhm. parce que di jéem a woo pour askan wàcc ci mbedd bi def violence yaakaar naa ne du jëmale Sénégal fenn. Mhm. d'autant plus que commission bi bañ koy taxawal daanaka yaakaar naa ne perte am na fa représentant. Mhm. kon résultat yi wadd na kon ñu def lu mooy félicité ki nga xam ni moom moo di Macky Sall. Euh, di sàkku ci moom tamit la nga xam ne waxoon na ko. ci benn rencontre boo xam doxoon na ci digganteem ak ñi nga xam ne di taskatu xibaar yi nekk fële ci France 24. Mhm. te jàpp si yàlla jëfee ko. Mhm. parce que waxoon na ne deuxième mandat bi mandat cohésion lay doon. Mhm. mandat la boo xam dafay fas yéene ubbi ñëpp boole leen mais pourquoi pas du taxawal gouvernement boo xam gouvernement d'union nationale comme ni ko Abdoulaye Wade defee woon ak nga xam ni comme ni ko Abdou Diouf defee woon ak woo ñëpp ba ñoom Idrissa ñi nekkoon ay ministre parce que problème yëpp après Sénégal mooy ciy gagné il faut que gars yi xam ne ne ñoom ay adversaire politique lañ duñu ay ennemi mm-hmm. tey ji yàlla def na Macky Sall faluwaat na kon la ñuy xaar ci moom mooy mu tàllal ñëpp loxo waaw en sax ñu xoolaat côté ku jégi ndax Issa Tine mu ngi fa Issa ñu lay euh, dalal waaw intant euh, ñu ngi nii di génn kon ñoom ñi nga xam ne ñoo di leader opposition bi ngir euh, installé a ki la di kon Mamadou de Decroix ak ki nga xam ne moo di Abdourahmane Diouf ñoom ñaar ñoo ànd Idrissa Seck nag ci kanam tuuti d'un moment à l'autre kon dina kenn moom itam daal ñëw fii nii ndaxte ñi nga xam ne ñoom la war a àndal ñëpp ku ci nekk génn nga ngir mën a def déclaration ginnaaw résultat yi nga xam ne moom la ñu génnee nit ki sàng ni dem ak candidat di koy jibal jamono ji nag jafe-jafe yi xawam rek moo di journaliste yi ndaxte daanaka ñëpp ñu jóge woon rek ca tribunal ñoo daal di daw riir wutal fii fi nga xam ne moo di quartier général bu Idrissa Seck kon ba léegi daal loolu moo ci xaw a nekk jafe-jafe takk der yi kii nag ñi kon journaliste yi bari lool di ci nekk rek di xaarandi ba xam moom lan lay wax waaye tànk dégg ngeen ñi nga xam ne ñoo dee militant ci biti ndaxte dañ leen bloqué ci biti di doon andee di wax ne deuxième tour deuxième tour sans bavure tour sans détour sans loolu de la ñu kon lu nga xam ne mën nañ ko cee lire ngi noonu ñuy seen mu sol yére yu weex tàll di reetaan moom nag il est souriant tey ngi noonu di génn ñu ngi koy gis muy génn xëy na itam bu fekkente ne sax direct bi disponible na ñu daal di koy dégtal El Hadji Saliou mi ngi ci bi di ko jéem a réglé waaye en attendant moom di ngeen am di nga xam ne son bi mu di nag Idrissa Seck déclaration boo xam ne moom lay amal kon fi léegi ay simili yu néew moom i Idrissa Seck dina wax ndaxte mi ngi doon di toog mi ngi noonu ki leen di ak laman moom sax mu jëntal ko kon dafa mel dafa taxaw moom Idrissa Seck ñu ngi ci des nag euh, taxaw ñoom itam ngir daal di xoolati ba lan lay def ci déclaration day faatu jamono ji na xaw na xat lool waaye lu ci mën di am rek di ngeen ko am ci Walfadjri ngir euh, discours bi nga xam ne lay tenir moom Idrissa Seck moom njiital coalition yi di deux mille dix mu war a àddu jëmale ko ci li nga xam ne moo déclaré ni ki sàng ci ay résultat kon ñu xaarandi. voilà kon ñu dikkal leen ko. waaw d'accord jërëjëf Issa. satisfaction au peuple sénégalais qui a massivement exprimé son désir de changement dans la maturité, le calme et la paix. mbokku Sénégal ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen ñëpp di nekk ci turam ak santam biir na ñëpp ci biir Sénégal ak ci àddina bi résultat bii nga xam ni commission nationale wax na ko tëppowul ak li peuple sénégalais bëgg te daj lu nekk taxaw temm pour amal ko te mooy changement ci bopp réew mi fokkarti googu nga xam ni fokkarti nañ ko li peuple bi bëgg na lu mu jur ëllëg benn nit rek lañu war a joxoñ baaraam mooy ki ko santaane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 loolu nag lu mu jur ci Sénégal ci wàllu recul démocratique kenn ki rek la ñu war a joxoñ baaraam moom la àddina bi yëpp war a joxoñ baaraam ñoo ngi leen di sant bu baax di leen allo waaw kon dégg ngeen ko noonu discours bi nga moom la def daanaka rek ay remerciement la moom Idrissa Seck jiital coalition idi 2019 mu doon def déclaration ñaawlu ko jàpp na di Macky Sall moo bëgg a foqati nguur gi te itam nag loolu jàpp na ne lépp lu ci am rek na xam ne moom la ndaxte recul démocratique la ko jàppee ñoom ñi ngi noonu kon di duggaat ku ci mel ni euh, Abdourahmane Diouf Déthié Fall Mamadou Diop Decroix ñooñu ñëpp ñoo ànd ngir daal di mën a waxtaan ak moom dégg ngeen ko noonu discours bi nag guddul amul sax question réponse ndaxte moom dafa daal di ko rek ba noppi remercier askan bi militants yi nag ku ci nekk taxaw ndaxte ñoom ñëpp ñu ci bëri ci ñoom ñu ngi sol ay t-shirt yu nga xam ne nag dañ cee bind deuxième tour deuxième tour sans bavure kon moom la ñuy réclamer ñoom ñi nga xam ne ñoo di waa coalition yi 2019 seen candidat ñu fàttali ne moo jël deuxième te ñaareel toogu bi ko ci la nekk waaye taxul mu daal di romb li nga xam ne moo di vingt pour cent kon bu fekkente ne itam xëy na sax mañ nañ jël ay quelques réactions sur nañ ko ku ci ni Thierno Bocoum moom itam li nga doon xëy na ñu taxawee rek ñu mën leen a indil ay quelques réactions ginnaaw déclaration bi nga xam ne def na ko waaye daal dafa mel ni fermeté lañ ci àndal kon ñu ngi kenn ci ñoom kon moom itam mu bokkee ci coalition Idy 2019 waaye bañ naa wax kon ñoom ñëpp jamono ji Ndeye Fatou daanaka ku ci nekk rek da nga bañ a wax ndaxte dañoo bàyyi Idrissa Seck ak kàddu gi ngir mu daal di daal di jubal li nga xam ne moo di discours jëmale ko ci nation sénégalaise donc

waaw Issa comme ni nga ko waxee rek mu nekk résultat provisoire yi sa sekk nag xam naa ñi topp si moom dañoo fexe rek euh, wéyee ndigal ndax moom mi jiitu ni mu waxee nii waxagul lépp dafa mel ni c'est un leader boo xam ne junj na junj nag dafa doy borom xel voilà la réaction de monsieur Idrissa Seck joxe na benn bal rek léegi nag à tout le monde de décrypter ce message qu'il vient d'envoyer au président Macky Sall hmm. c'est pour dire que non seulement il n'accepte pas ces résultats hmm. mais aussi il va pas laisser les choses comme ça et que du ñàkk ni hmm. dans les heures à venir ñoom am nañu réaction yoo xam ne daañu ko def euh, li mu werte li mu tënk bu ñu ko xayma wala ñu faran fàcce ko ci wolof moo di dellu ginnaaw bi nga xamante ne am na ci suñu démocratie sénégalaise lépp lu ca mën a tukkee rek kenn lañ ko war a joxoñ ci baaraami tuuma président Macky Sall mi nga mm-hmm. xam ne moo fi nekk mm-hmm. euh, un discours boo xamante ne dañuy jàpp ne c'est dans le clair obscur mm-hmm. waxul li nga xamante ne moom la ñu namm génnewul li ci xolam waaye nag junj na mu war a doy képp kuy euh, borom xel waaw juñu na juñu na wax na euh, wax dëgg yàlla parce que boo xoolee ba xool euh, la muy wax sax daanaka euh, woote woote <laughs> woote révolution sax lay gën a lay gën a niru mm-hmm. parce que boo waxee na ne àdduma ci résultat yi mm-hmm. wax ne aussi mu ngi artu Macky Sall ci lépp loo xam ne ni mën naa xew réew ci réew mi ëllëg mm-hmm. kon ça veut dire ñëw mënuñoo jàpp ne dafa nara woo population bi wala askan pour que ñu wàcc jàmmarloog moom loolu peut-être mooy wax ji waaw le fait que nag wax dëgg yàlla nanguwul résultat yi peut-être waroon na koy gën a mën a leeral mhm. parce que dafa def déclaration rek bàyyi noonu waaye waroon naa mën a leeral wala sax mu permettre à ce que journalistes yi mën ko poser question mhm. laaj ko lan moo tax représentant am fekkee woon liggéey bi nga xam ne ni commission bi ñu ko doon def mhm. ba à la dernière minute commission moom moom mu retiré wu waroon na ko permettre wax dëgg yàlla mu leeral ko le fait que aussi mu rejeté li nga xam ne moom moo di euh, euh, euh, résultat yi waroon naa wax lan moo tax mu rejeté ko parce que aussi y a des choses yoo xam ne ni en tant que leader waroo ko jékki-jékki wax ko di bàyyi parce que sénégalais ay borom xel lañu sénégalais yi dañuy xalaat tey jii bu fekkente ne wax nga ne résultat yi ànduloo ci ay li yoon boo demee bay def déclaration da ngay teg ay points yu leer yuy wane ne lii ànduloo ci mais mënoo jékki-jékki ñu joxe ay résultats rek nga sànni résultats yi ne ànduma ci ba euh, bi jël ci seen responsabilité te yow gisoo leader aussi euh, mm-hmm. réaction spontanée waru ko. non mais quand même mu leeral quoi. mu leeral peut-être junj bi euh, waroon na ànd ak explication waroon na question réponse ci presse parce que journaliste yi demoon. waaw <laughs> yaa ngi ma sax. non parce que wax. non léegi ku nekk war a dégg fi mu waxee rek. man kay non na répondre à certaines questions. mënoon na parce que aussi bon dafa am mm-hmm. yoo xamante ne tout de suite. li ci waroon indi explication mooy lu tax mandataire am na ko fa nee na àndul ci résultat yi loolu moom peut moo tax seen mandataire delluwaatul foofu tey suba war na a joxe ay firnde yu ndaw yoo xamante ne dina na dina ko wax ci ci jamono yi ñu dëkkmal mais réaction bi mu njëkk a am leer na ci xel yi ne nanguwul résultat yi parce que tax mu rejeté quoi <laughs> que côté boobu bëri bu kenn la xam naa ne nag moom bon loolu peut-être c'est une déclaration politique. Mm. qu'est-ce que suite bi nag lan lay doon. Mm. loolu nag euh, xamaguñ ko en tout cas mu ngi laaj euh, ñi exprimer seen suffrage. Mm. pour ñu jël seen responsabilité. mais peut-être d'une autre manière xaw ma nag euh, comment puisque seen responsabilité nekkoon na ak seen devoir. dem woote ji ñëw nañu gagné nañ moom reconnaîtreul ndam loolu nan la ko mën a xeexee nag parce que itam li ma la doon wax sànq mooy am na ci question yoo xam ne c'est le combat d'un peuple mais actuellement. ils sont un peu faibles par rapport ak booy seet euh, li nga xamante ni moom moo war a xeex lu mel noonu système yu mel noonu bu fekkee lu taxaw la. Mhm. moo tax ma xam ne wax na ko mais ci yan anam la koy defee nag seen stratégie politique la peut-être am na lu mu teg. avant moo tax ma jàpp ne xam bàcc la defagum gum rek. en ah, tant que leader di kilifa toll hmm. foo xamante ne ci niveau de responsabilité gaaw wax tamit waru ko. ndax bu hmm. ko defee ñu ne Idi waxee waxati na ndax wàllu communication na ci antécédent yu dul jeex. du ñàkk ne loolu ci la sukkandiku ba bañ a gaaw a faram-fàcce lépp lu mu namm. pouvoir euh, bi ñoom waroon nañ def point de presse aussi ñoom xanaa dinañu édifier. waaw ñoom ci seen bor parce que ñu ngi contester résultat yi. waaw ba tey tam ñoom ñu ngi ñoom ñoom dañuy feetu foofu tamit mhm. <laughs> ñoom pouvoir bi dañuy feetu. allo oui Ndeye Fatou. waaw foofu noonu yaa ngi. allo Ndeye Fatou. waaw yaa ngi wax waaw nii di QG wu euh, président Idy. Mhm. Euh, maa ngi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Thierno Bocoum xam ma bàyyi ko rek mu daal di wax euh, Thierno gis nañu ni da ngeen wax décidé doo leen def recours waaye itam li ñu gën a seetlu muy lu gën a da ngeen yóbbu ba ñu doon procureur de résultat dafa daal di siéger lan moo waral li ni waaw lu ñu mën a wax mu leer je pense que président Idrissa wax na ko depuis le début gis ngeen. position bu gouvernement bi am bu ñu fàtte ne ne lii am tey lu ñu commencé la depuis presque deux ans mu jëm ci processus électoral mu jëm ci parrainage bi mu jëm ci fichier électoral bi ni ñu ko traité mu jëm ci ministre de l' bu ñu imposé ba jour yi bi ñu jël ay décisions yoo xam ne méngoowul ak lu démocratie wax tey bien bi résultat yi ñu am mooy résultat yoo xamante ne moo mujj ci acte yu ñu posé muy acte de antidémocratique donc refuté nañ ko totalement jàpp nañ na tey te gis ngeen ko ñëpp xam nañ ko que ne lii ñu joxe méngoowul ak loo xamante ne moom la sénégalais yi génne méngoowul ak loo xamante ne moom la euh, disons population yi doon xaar donc tey ñu ngi koy wax encore une fois président Macky Sall def na mëninam mooy forcing bi def na loo xamante ne méngoowul ak démocratie te démocratie moo ko fi teg def na noo xamante ne ne tey gàcce la pour Sénégal moo tax ñu refuté totalement euh, disons euh, résultat yi ñu joxe. lu ko mën a tey daal rejeté carrément suñu dafa mel ni yéen da ngeen euh, waaw mais mais bien entendu bien entendu mais mais dafa mel ni quand dafa am loo xamante ne di ñun rek tam ngeen ngeen laaj population yi ñëpp xam nañu ni lii ñu bëggoon def depuis boobu ba léegi ñu ngi ko nas méngoowul ak lu population yi exigé le 24 février donc mënuñu am un boo xamante ne dafay avaliser loolu. mënuñu nekk mais yeneen mandataires yi bokk nekk ay coalition euh, nekk opposition ñu bañ ko am benn genre ma ne am na déclaration bu bu bu opposition bi génne candidat yu nekk ci opposition bi yëpp dajaloo nañu gisante ñu tey. gis nañu benn déclaration déclaration yi distribué nañ leen ko léegi benn déclaration lañ def pour wax ne ñoom ñëpp ànduñu ci élection yi ni mu demee ànduñu ci résultat yi. waaw lu si mën ci am rek di ngeen ciy xam dara li ma mën a wax rek mu leer mooy déclaration bu njëkk bi ñëpp ko sénégalais yëpp xam mooy résultat yi ñu génne méngoowul ak lu population yi voté respecté wuñu population yi génne nañ loo xamante ne ne euh, véritablement nekk lu dul intérêt président Macky Sall te loolu ñun mënuñu ko nangu. allo. oui allo Khady Sylla. allo oui Ndeye Fatou Ndiaye rek. waaw. Euh, euh, ñoo ko déggoon doo dama ko doon laaj bu tax ñi nga xam ne moo moom la ñu mandaté woon pour mu daal di dem fa la nga xam ne mooy pour euh, conseil constitutionnel pour ñu mën a joxe résultat yi dafa refusé carrément daal di signé PV yi te yeneen naataangoom ña fa toogal Idriss plutôt Ousmane Sonko Issa Sall Kenya daal di def li mu ne dafa mel dafa mel question bu ñu ne ko mais moom dafa ne euh, ba dafa mel ni daal il n'a pas donné réponse précise maanaam bu leer boo xamante ne nit nañ koo jàpp. Mm-hmm. loolu leer na fekkee am nga yeneen question fekk am nga yeneen question il est toujours mun a mun a tontu ci waaw leer na nañ xadisi la li nga wax yëpp euh, macha allah leer na nañ ñu lay jaajëfal bu baax ñu leen di yëgal nii nag euh, fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi moom ñu ngi fay laale laale yu tàng ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi Euh, Mouhamed Lamine Massali bokk ci euh, coalition Madické 2019 teewee côté yooyu moo ñu ko baaxee ci information mhm. kon nag euh, ñu ngi koy topp di ñaan ñoom Issa Tine wala Khady Sylla bu ñu mënee dem déplacé wu ba foofu rek xam la fa xew ngir yeggee ñu ko dina baax lool ci suñuy antenne ak suñuy information Seydina waaw effectivement je pense bien que loolu mooy li am solo mhm. l' essentiel dégg nañu li nga xam mooy li may wax rek waa coalition Idy mhm. peut daañu daje ci seen biir waxtaan xool. Mhm. lan moo tax ñu rejeté li nga xam moom moo di résultat yi. Mhm. waaye jusqu'à la preuve du contraire Thierno Bocoum wax na. Mhm. Idriss Seck wax na waaye jusqu'à présent dañoo dañoo rejeté rek résultat yi mais waxaguñu lan moo tax ñu rejeté ko. peut comme ni nga waxee rek kilifa la peut am na benn niveau de responsabilité boo xam ne ñun suñu suñu suñu fa. peut am na ay informations yoo xam ne amuñu ko moom moo tax peut mu yem ci discours bi foofu. peut après euh, dana dana